wax ne nañ ko jottali ñëpp dégg ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabitanhu bilhaadi